asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar di am mbégte janowaata gi yéen ci seen chaîne leader bile Equivox TV euh, ñu amaat mbégte nag euh, tey amaat beneen gan boo xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal muy benn animateur boo xamante ni macha allah béy na waaram ci li nga xamante ni rek moom mooy aaram ba ñu ràññee ko partout à travers le monde nee naa nag mag ñi xale ci xaw ma nu ñu ko olof Njaay di waxee noonu mag ñee ko jàngal nag waaye ndaw ñi ci moom la ñuy euh, jàngee moom mooy euh, Sidaat Thioune bu euh, RFM borom kër gi borom la mu saf te nag moom laa dalal fu seeni waxtaan ak moom lu baree bari dañ koy bàyyi rek mu nuyoog ñuy seetaan. tey ziar man tamit di la jox sa wàccuwaay di la ziar di kontaan sa teewaay di nuyu vraiment say internautes. donc di leen wax ni kontaan naa ci ci ci dalal bi. partagé di kontaan itam ci li nga xam ne rek moom mooy euh, disponibilité bi dañuy ñëw ci li nga xamante ni tuuti rek moom mooy millier animation bi ku ne xam na ni euh, euh, yombul des fois di nga jot ay retour yu yu yu positif des fois nga jot ay retour yu négatif naka la ko Sidath di dundee. comme li nga wax nii man defe naa avec expérience bu tuuti bi ma jot am. dama kontaan ci waa Sénégal rawatina ak euh, internet yi man di c'est rare sax ma gis lu ma naqadi xam nga <laughs> nit moom mënul ñàkk lu am lu ko naqadi mais man sénégalais yi ñëpp ma bëgg te ku ci nekk rek daf may won cofeelam ak mbëggeelam di ma encourager mais aussi di ma di gën a wane sama mbëggeel ak ñoom euh, loolu daal laa gën a remarqué ki leneen au fait man amul lu may xamante ni dama koy santi ci lu ma naqadi ci sama liggéey non je le sens pas bien bien sûr je ne regrette rien parce que dama ko tarbiwu ah dama man dama mbappat comme on dit ah <laughs> dama mbappat donc euh, euh, man je je regrette pas d'être un animateur parce que sama Sénégal laay liggéeyal sama réew laay liggéeyal ba pare euh, di liggéeyal euh, waa réew mi euh, ndax ñoom lépp lu ñu bëgg. ci loolu lay dox waaw di leen divertir di leen kontaanloo euh, di dindi seen stress euh, di partage ak ñoom donc loolu nag mission la euh, du ñëpp ñëpp nga mën a bëggal à cent pour cent mais même boo ci bégal benn doomu aadama wala ñaari aadama sax wala wala ñaari doomu aadama sax loolu rek tiyaaba la boo xamante ni que sunu borom moo koy fay donc man damay bëggal sama waa réew ndax sama waar réew dan maa bëgg ma bëgg leen waaye <laughs> mais nag dañ la gis nga fës lool lool ci ki nga xamante ni moom mooy Wally ba premier albumam bi euh, euh, euh, ñu nga woon këram ba ba muy def présentation bi yaa nga fa woon bii aussi la même chose ay voyagem yu bëri aussi dañuy gis ngay ànd ak moom tey ñu bëri naan si daal day liggéey fi nga xam ni moom mooy Faramareen musique loolu am na. moom mun naa ne Faramareen sama Faramareen la pourquoi je le dis parce que ñoom ñëpp dama leen bokk njaboote. et di ñoom ñëpp dama leen bokk njaboote Faramareen sama kër la aw fa benn sens interdit te it ki nga xamante ni c'est le patron mi Wally Balago sekk daf maa yëg ci ay projet am ci ay activité am euh, ba pare mu xam relation bi nga xamante ne ko siqoon naa ko ak papam ju baax ji muy coon Balago Seck man tey su ma ci taqee rëpp rek c'est parce que papa coono ko waral ndax ba dara dul dara papa coon daf ma yàgg wax ay mbiru waale te loolu waali sax fekkewu ko mu nekk un artiste boo xamante ni que mi ngi ci carrière am mu may wax na ma si daat dama am doom bii woy te dama bëgg ngeen jàppale ko ndax man yow laa fi am Oui. Euh, avant le décès de Papa Thione, euh, on a des relations particulièrement ak Papa dafa loo xam dañ koy dund man ak moom loolu yàlla dogal yàlla nu ko yàlla xaaree àjjana Papa Thione su ma ñëwee néegam la may dugal xam ni dugal la néegam loolu du ku ne moo koy def ci néegam nañu topp naa ay trois heures de temps quatre heures de temps xam nga loolu day yàgg mën nañ toog si néeg ba yëgee yéeg sonn sa après jog dugg dem ci studio ba yëpp. mu nekk ay mbir yoo xamante ni que nit ki mu may woon boppam di ma woon ay mbiram mais buñ daan toog tamit daan na ma wax ci waali ne dama am doom ji woy te dama bëgg ngeen jàppale ko ma ne ko ah Papa Thione ñun moom musique sénégalaise moo nu ñor donc li am solo mooy euh, ku ci nekk rek dinañ ca bay sa nuwaar parce que loolu mooy sunu sunu devoir Wally nag dafa nekk un frère dama naa sax c'est un frère de valeur j'ai l'habitude de dire ça parce que moom moo ma wan valeur yooyu euh, musique sénégalaise yaatu na ku ci nekk ak kilo la ci yëg ki ci ne ak kalo ca faale ki ci ne ak kala boole tamit ca boppam ndax lu muy def daf may xamal lu muy duggit boole ma ca xam nga nit bu la boolee si boppam faw nga boole ko si sa bopp ba pare mu nekk engagement boo xamante ni que colère bu ma yàlla booleel ak papaam euh, tey doom ji aussi tamit ñoo continuer kóllëre googu donc loolu suma collaboration ak Wally dafa nekk euh, lu ma neex parce que c'est un garson exceptionnel gentil humble et puis ku jox nit ñi cër respecté ma ma respecté ko euh, ay liggéey moo ci boole te man musique sénégalaise moo ma ñor j'ai l'habitude de dire que ni man je travaille pour tous les artistes du Sénégal li ngeen may gën a gis ak Wally mu gën a am visibilité c'est parce que moo ma boole ci boppam li muy def boole ma ca li muy def ma nekk ca kooku c'est très normal mu nekk woykat ma nekk euh, un porteur de voix ngeen may gis ci kaay spectacle am parce que moom ma ciy boole tukki yóbbu ma donc man sama liggéey mooy non man artiste yaakaaruma moo am benn frustration parce que man lu ma defal Wally rek defal naa ko artiste Sénégal yi au contraire ñoom laa ko jëkk defal man servir naa artistes yu bëri yoo xamante ni Sénégal dama naan am na ñu bëri ñoo xamante ni que bu ñu amoon colère dëgg dëgg dëgg euh, ñoom dina xam nan ñuy doxalee ak man ndax dama yàgg sonn ci ñoom man waaye defaluma ko dara <laughs> wala boog defalaguma ko dara boog mais man li ma rendre service les artistes du Sénégal bëri na non je vais mais bëri na ku ci nekk rek relation bi nga am ak Sidath xam nga ko même bu ma limul wala ma tudd tur di nga xam yow artiste bi fan nga jaar ak Sidath Wally mooy ki moo mujjee taxaw di ko soutenir man Wally laa mujjee taxaw di ko jàppale mais man artiste Sénégal amul ku fi nekk nga doon daanaan ci réew mi te jàpp ma si sa ay mbir noonu la yàlla loolu la yàlla dogal. à part Wally ban artiste laa gën a jege dinaa wax benn affaire man j'ai pas l'habitude de fréquenter les artistes ñoom ñëpp samay waay nañu. man dama nekk nit boo xamante ni que boo xam sama bopp du ñëw sa kër te woo ma fa du ñëw sa bis te invité woo ma fa du ma dugg tamit si sa ay mbir te boole woo ma ca dama nekk animateur bu xam sama bopp cest à man sobu ma sama liggéey laay respecté liggéeyal nañ nag ñoom ñëpp da A à Z amul xaar ma yàlla ñoom ñëpp laay teg ñoom ñëpp laay wax ñoom ñëpp laay jox seen valeur parce que loolu mooy sama liggéey liggéey boobu nag dama koy def ba mu mat sëkk mais bu dee côté fréquentation euh, moi avec les artistes euh, du Sénégal euh, am naa ci ay waay mais on se fréquente pas. pas longtemps à la rajo en direct parce que Bakane Seck jëri jëri kooku sama xarit la kooku moom mooy artiste bi nga xamante ni day nekk ba Europe ba Japon. ay trois heures du matin 4 heures du matin dañuy waxtaan wi Bakane sekk Jëri loolu moom je le je le souligne ici il y a pas longtemps moo def euh, ce week-end là grand bu nice bu exceptionnel sargal euh, ki nga xamante ni moo di la communi le président de tous les communicateurs traditionnels Alaaji Mansour Mbaye mais euh, Bakane moom sama sama nit la ça waaw producteur bu dal sama kaw ndax Waly ah peut-être xëy na li Wally def rekk nga deful pour man parce que un producteur il a besoin des des animateurs il a besoin des communicateurs xam nga nu euh, nous sommes dans un pays boo xamante ni que dañu bëgg détail producteur bi mën na laa wax lu ko neex mais moom bu toogee xam na ni moom la muy liggéey war na woo si daat war na déplacé wu ñëw togg si daat ndax c'est un producteur man producteur bu yaakaar na ma lay topp da ngay nax sa bopp ndax man man du ma topp kenn <laughs> ma xam kan lay topp Cheikhul Khadim man topp ma kenn fëgguma tamit kenn sa kër wala ma wala ne la damaa soxla wala man la abal ma wala man la may ma man boo nekkee un producteur tu as ak à communiquer tu as à faire beaucoup de choses avec les porteurs de voix mais tu peux pas rester dans ton coin nga bëgg lépp di mat c'est impossible kay liggéey nag nu am ay relation boo gisee euh, nga gis euh, liggéey ma ciy jàpp nga ciy mer loolu pour man defoo sa wareef si parce que deful wareefam producteur dafa war a jóg di communiquer di xool nan la liggéeyam di évoluer mu waxtaan ci ak ñun loolu mooy dëgg y a combien d'animateurs dans ce pays na waaw léegi tu peux pas ne croiser les bras di xaar ñu lay fëgg si wala di la woo wala di la topp man du ma topp kenn. oui. Euh, euh, oui. oui. une fierté sur ce garçon parce qu'il a osé. Je peux dire que plus de 12 ans ou bien 13 ans, Wally il n'existait pas. Et il y avait énormément d'artistes dans ce pays. Alors, tey boo xoolee tey ci génération bi ñu nekk Wally il a osé dafa wane boppam ñeme li muy def il met les moins qu'il faut Euh, ba pare nekk un garçon généreux xam lan mooy àqu liggéey mu jox la ko xam nit ku ne de quoi il est capable ràññee ay nitam xàmmee ay nitam ku ci nekk la mu soxla mu woo wax ca ak yow mais kooku <laughs> da nga koy jàppale te artiste bu ko defee nu jàppale la mooy ce que je dis Wally c'est une fierté au Sénégal c'est une fierté en Afrique parce que il a fait un album exceptionnel l'album I Wanna Be Free un album de vingt titres qui cartonne énormément fort sur le plan international te nag mu am audience mu ubbiwaat yeneen bunt yoo xamante ni que fii ci kanam da ngeen dëggaat yeneen projet yoo xamante ni que album bi moo ko décroché et puis c'est ça qui est important Wally c'est un sénégalais du gambien du du du mauritanien du ivoirien du c'est un sénégalais et fier de l'être mais tey fu mu dem rek drapeau Sénégal lay yóbbu ñun Afrique ñu ñëpp noo bokk ndey ak baay mais ku ci nekk rek da ngay jaay sa culture te notre culture ku ci nekk xam na ban sens la am ci miim réew moom nag mu ngi koy jaay bu baax a baax waaye tamit gën a jaay réewam c'est important ndax euh, tout ce qui international rek boo amee nit di leen bëgg di découvrir kii réewam na mu mel nan lay doxe lan mooy seen cosaan lan mooy seen aada kii fu mu juddoo fu mu yaroo loolay waral affaire di gën di évoluer di dox loolu c'est important album bi moom nañ ci ñaan xéwal ju bëree bëri comme di dit beaucoup de succès nañ ciy ñaan ci album bi way vraiment oui. mais c'est une fierté Sidi Diop yaa ngi wax xale bu am talent je l'ai invité il y a pas longtemps il a fait euh, tamit euh, un concert euh, à Wakam Bercy Wakam mais Sidi Diop a fait bouger Wakaam mu toj ko cest à xale boo am talent xale boo am nii xale boo xam ne dañoo am ni ci moom yaakaar et je sais que. Euh, mais loolu mooy affaire bi nag gis nga bu nu amee Wally am ay Sidi Diop am yeneen artistes encore yoo xamante ni que c'est-à-dire dañuy oser. liggéey sur le plan international mais loolu bagage gënu ko rëy te Sidi Diop c'est une fierté au Sénégal c'est un garçon qui a énormément de talent il est talentueux Sidi Diop il chante bien et puis il a son propre style xale bu ñeme la xale bu bëgg tamit li muy def la loolu da ngay xam ni kii am na avenir ci carrière bi am na solo je le félicite beaucoup na continuer bu mu na gumba lu bañ a déglu kenn na liggéey man loolu rek laa koy conseiller voilà. diggante ak Pape da nga daan liggéeyee moom biir génération consciente. wala suba teel mais gisatuñu la nga fës ci tamit toxob loolu lan la la mooy problème. non y' a aucun problème <laughs> Pape Diouf boo mujjee def album moom écoutez man maa ko présenté en exclusivité man maa présenté Pape Diouf en exclusivité album écoutez Pape Diouf. am neen relation yu nice man ak moom et quand je relation yu nice yàgg na peut-être xëy na activité léegi moo bëri ba nga xam peut-être amatul yenn jot yi nañ daan gisee avant mënatuñ ko gisee léegi euh, liggéey bi tamit la même chose mu jàpp ma. bon il faut euh, lui demander ça pas moi. <laughs> ni yàgg ngeen ànd lu jiitu sax li nga wax nii euh, euh, euh, maanaam gisatuñ la bu baax wala gisuñu la moom mu xëcc la ci boo xam en tant un animateur un ami lan moo tax loolu. xam nga bañ nga da nga ni gisatuñ la mu xëcc la ci boppam moo tax il faut aller lui demander ça Pape Diouf ma jaar ak moom est-ce que jaar naa fa sax ak artistes yi. Pape Diouf ma jaar ak moom dama naan jaarumu fa ak benn artiste li ma naan tey ku ma gis ma ànd ak waali nga mer defal naa la loo xamante ne lu raw lu may defal waali xaw ma ndax dégg nga wax jooju parce que dafa am fu ma jaar ak les artistes du Sénégal ku ci nekk rek ak relation bu ma amoon ak yow mais man maa dul nit boo xamante ne dama lay topp man duma ma duma du ma toppee man da may yëg ma yëg la yëgoo ma ma xam sama bopp je suis comme ça je suis parce que tamit. dama doon li ma doon yàlla def ma ko avant ñu bëri di fi xew man ba may siw du tey kon du tey lay toog di def yu doye di non non bu ne jaar na fi ma soutenir sa carrière yokk sa audimat yokk say say fans di la promouvoir di def ci yow yu bëri lu naan lu sotti am boroom lu sotti am boroom mais li am solo kóllëre dafa am solo mooy sa nitu démb waroo ko fàtte waroo dugg ci dara nanga daan def démb dafa too ko am na nooy def nag nit ki day croiser les bras di la seetaan rek. bon xawma ma lan la j'ai l'habitude d'entendre ñu neen artiste ak mbër nu baal maa ñu am nu kóllëre bëri na artistes yoo xamante ni que da ngay sonn ci ñoom daj ci ñoom lu ne mais duñu am colère wala soit li fàttaliku démb et que loolu nag euh, c'est désolant quoi au fait c'est désolant duñu ñëw en tant que porteur de voix en tant que un animateur te duñu la laaj aussi ci actualité réew mi euh, gis nga barki Dembo Ndiaye euh, ki nga xamante ne dañ koo sulli euh, ñu ne boroom ñaari tour la sulli ko lakk ko ci anam bu xamante ni jéggi na dayo ba nga gisee loolu violence boo xamante ni ñëpp kenn yaakaaru woon ni Sénégal am na nu xol boobu ba nga gisee vidéo yi. c'est c'est désolant en fait. condamné ma ni. ni ni ni ni gën a dëgëral góor jigéen ci dëkk bi parce que loolu du lu ñuy nangu góor jigéen du mës a fonctionner au Sénégal mais jëfin yi yenn jëfin yi ñaaw na ci Sénégal aussi je je ne reconnais plus mon pays maintenant pour man sénégalais du yegg à ce point là ndax ñun ñëpp dañuy dee ëllëg <laughs> te yàlla mooy jugé du nit mooy jugé. li am solo mooy am na yoo xamante duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg mais tamit bu ñu fàtte ni ñun dañoo am boroom bu ñu sàkk te am na lu nu war ak nu nu war a doxe te tamit yoon dafa am lépp nañ koy teg ci yoon c'est important mais bu nu violent wala soit nii def yenn yu ñaaw yi ci image du Sénégal na naan le pays de la teranga ñaaw na trop vraiment nekk loo xamante ni vraiment ñëpp ko euh, ñaaw lu comme ni nga ko waxee góor jigéen du nekk loo xamante ni dañ koy daganal ilaa yomi din fii ci Sénégal mais li nga xamante ni jëf nañ ko euh, keroog kenn rafetlu ko waaye na sama dernière question rek nga daal di euh, tàggatoo Sidaat waaw mais li faaw ma laaj la ko polémique bi diggante Aby Ndour Safi Viviane audio waxante yu ñaaw yi. li may gis nii je ne parle pas des détails. mais le linge sale ça se lave en famille foofu laa ci yem duma ci avancer duma ci expliquer dara yàlla na jàmm am yàlla na jàmm dellu si ndax bañ ak làmmiñ a dëkk te terewul di dineen màttante euh, comme chaque sénégalais bu nu sañoon ñëpp nekk ci jàmm xuloo ak di waxante yu ñaaw loolu kenn du ko rafetlu Sénégal du dëgg mais damay ñaan jàmm dellu si ci lépp lépp affaire famille la te comme ni comme ni sama famille di yëngoo comme sa famille ni mu yëngoo noonu la yeneen famille di yëngoo donc tey nag doon toll ci nouvelle technologie ak affaire internet lu xew et puis nu bàyyi di jël internet du ko def règlement de compte parce que c'est dangereux c'est trop dangereux conséquences yi duñ ko xamagum léegi mais di d'ici plusieurs années ngay xam ni lii baaxul woon quoi au fait nen nen nen waxtaan ci sunu biir

pour ngay sosal nit wala ngay waxal nit lu ñaaw yow la kon yow la yow la bu fekkee àllu àddina jaral na la pour ngay détruire doomu aadama loolu yow la bu fekkee ni jënd la ak euh, di la euh, di la di la di di la di la di la di la jox xaalis ba tax ngay dëkkal nit ñi fa nu dëkkul loolu yow la fii yàlla moo fi ne waxal nit lu ñaaw taxul nit ki sax mu ñaaw wax yàlla na jàmm am yàlla na jàmm am man daal loolu lay ñaan Abi c'est une sœur que je respecte beaucoup sama xarit la waa waaw mais waaw mais c'est noonu la noonu la xam nga jigéen yéen jigéen ñi xam nga rek yéen moom seen yët deret bu tàngee dëgg mooy loolu affaire jigéen la ko mais daal nen nen ci nen ci ñaan jàmm nen ci wax tamit jàmm parce que histoire bu amee da ngay xool da ngay àtte mais pas nga ciy gën a xëmb xëpp xëpp kaani c'est pas comme ça ñaari nit yi xeex boo leen gisee danga nga leen di àtte quand même non non écoute affaire du ay affaire faral affaire xam nga laal la ñaan jàmm du ay damay faral Viviane wala damay faral Abi damay ñaan nu réconcilier wu ci jàmm loolu lay ñaan parce que ku sañoon ku ne sa njaboot du nu xuloo du nu am benn sikki sàkk moo tax ma ni yàlla na jàmm dellu si man de loolu lay ñaan mais sinon amul sinon amul leneen loo xamante ni dama koy wax wala may critiquer wala non non non loolu c'est pas mon rôle et puis ay histoire yi jigéen sax lu ci yoonu góor histoire yi jigéen lan moo ci yoonu góor pour man góor ñi war neen dem xool leneen daal te bàyyi internet bi nu liggéey nu bàyyi ñuy def di xaar chaque jour cas am nu toog di ko traité pour man ay jigéen yu xuloo lan moo ci yoonu góor non c'est vrai war neen mën a wax yeneen wala nu jubóole mais da ngay dégg ñoo xam dañ leen di gën a jaxase am ñoo xam dañu ciy profiter pour bëgg ci am buzz ñoom tamit parce que c'est deux divas c'est Abi c'est c'est c'est Viviane am na ñu ciy dugg pour gën a ñii na xaar maa téye buzz bi à cause de quoi et puis ça sert à quoi j'aime pas kontaan nañ di rafetlu itam euh, disponibilité bi di la bàyyi nga tàggoo di gërëm waa VIP people yëpp di leen sant di di leen jox seen wàccuwaay di nuyu chers internautes di leen wax ni lépp lu ma wax loo xamante ni sama njuumte la ngeen baal ma àq bu baax a baax te xam ni nit moom matul euh, mais lépp luñ fi wax ci lu rafet rek ñu euh, xam ni tamit sunu borom la nu sunu borom boole nu yiw bi yëpp donc ma leen di gërëm di leen sant. a you